seetaan Tawhid TV asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw bi ñu sante borom bi subhaanahu wa taala julli ci annabiyil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi amaan mbégte ci dellu siwaat ak yéen ci seen jotaay bi ñu tuddee euh, gindi seen émission gindi. di am ay bis gu jot ñu ciy ànd ak yéen di indi ay waxtaan yoo xamante ne nii dañ ciy jéem a settantal ak euh, teqatle xew-xew yi nga xamante ne xew-xew yi jamono la waxoon naa la ne gindi day tolloog rek euh, ñun ñëpp soobu ci am mbedd di dox waaye mbedd moo jaar day am yu lay won fa nga war a jàdd léeg mu nekk ay tableau yoo xamante ne danaan la fii da nga fiy taxaw wala jubalal wala jàddal ndeyjoor wala càmmooñ wala wetul tuuti loolu mooy doxaliinu àdduna lépp xam ne dañoo gaar léeg-léeg dañuy soxla teg ko ci taabal ji jéem koo firi faram fàcce ko waxtaane ko ngir indil ci mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ak jàppandal ci li nekk ci seen kanam maanaam ay solution ñoo ngi leen di nuyu baax a baax di leen jaajëfal jaajëfal personnelu Tawhid TV yépp nag rawatina eh, kilifa gi ak ñi nga xamante ne ñoo koy jàppale ci liggéey bi ñaan borom bi mu yokk koo sàmm barkeel ab yëngutoom jaajëfal équipe technique bi nga xam ne moom la ñu àndal eh, ñoom itam ci njiital Abdul Karim eh, wammat jotaay beeg réalisation beeg yi nga xamante ne moo ci am ci taxawaay yépp ñoo ngi leen ciy jaajëfal bu baax a baax amaan mbégte ci dellu siwaat ak yéen ci seen émission gindi ginnaaw bi biñ jaajëfalee professeur Euh, docteur Jim Ousmane Darame mi ñu dalaloon ay bis gi ñu génn ci taarixu lislaam ci Afrique ak ci Sénégal ndokkeel ko baax ci euh, waxtaan wi ak nim ñu ko décortiquer tey ñu amaat beneen euh, gan wala geneen gan amaat yéene waxtaane waat suñum réew waaye waxtaane tolluwaay bi waxtaane itam euh, yu baree bare yoo xam ne gaar nañu ci actualité bala maa ñëw ci li ñuy waxtaane dëgg-dëgg ma dalal suñu gan di Saliou Sow Saliou Sow di koo xamante ne jàngatkat la euh, waaye itam tolluwaayu jamono léeg-léeg mu yitteel ko ànd ak mbubb yim sol ci wàllu liggéey yëpp mu ñëw di ci joxe xalaatam bokk ci ñi nga xam ne bëgg nañ askan wi am solution ngir fi ñu teg seen i tànk sëñ Saliou maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoonteeg ñi ñuy seetaan. Euh, sëriñ Mbacke maa ngi lay fay. di la wax euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah salaam di la gërëm di la sant ci dalal bi nga ma dalal tey ci Tawhid TV. Mm-hmm. ma ñëw fekk mu nekk ay initiative yu yu yu baax. Mm-hmm. yoo xamante ni wax dëgg yàlla euh, man am naa ci euh, mbégte bi ma gisee seen taxawaay ak seen toogaay fii di di ñaan yàlla. Euh, ngeen jëm euh, ca kanam. Mm-hmm. di nuyu aussi euh, sénégalais yi di nuyu téléspectateur wu taw Tawhid TV yëpp. Mm-hmm. jërëjëf sëñ Saliou ñu jaajëfal ko bu baax itam am mbégte lool ci wuy si gi ndax xataayu dëkk beeg yenn responsabilité yi bu tegoo ci ndoddum nit bu ca boolee ñëw ci média day yëg ni bu ñëpp toogee bàyyi média ñi ca wërta dem ñoo cay dem émission gindi bu ñu sañoon li ñu fiy waxtaane di amal njariñ askan wi saa su nekk tolluwaayu jamono ci suñum réew ku ko wax da nga ciy boole politique ndax moom boo ko njëkkee wutit da nga ko mujjee mu saf ci sàpp bala waaye rax ko ci wala boo ko ci boole itam ñu ne la politique moo ko tax a jóg euh, sëñ Saaliw buñ jàngatee gis nañ ne euh, ci tolluwaay boobu bari na lool yoo xam ne xew na fi bokk na ci euh, maanaam charte bi nga xamante ne dañoo wax ne dañ koo indi mu jëm ci non violence maanaam yoon woo xam ne dañ koy yoonal ngir ñu tënku ci mu indi jàmm charte boobu biñ ko càmbaree ñi ko indi di ay nitu diine association bu boot ay association islamique yu baree bari ci biir réew mi kilifa yu baree bari itam bokk ci ñu am initiative boobu bala maa gën a sori bi nga déggee charte boobu suñu saaliwu noo ko jàngate euh, ni ma ko jàngatee sëñ Mbàkke moo di euh, jubluwaayu charte bi ak la ko tax a jóg dafay révéler maanaam dafa ñuy jox yëg-yëgu ne jën wi téye démocratie ci ci sunum réew. Mm-hmm. am na lu ko jot. Mm-hmm. jën wi ci boppam am na lu ko jot. jën wi ci boppam am na ko jot. Mm-hmm. ndax jël initiative wu ne dañuy dox jàmm ci biir euh, diggante acteur politiques yi moom day wane ni am na lu xew. li xew ci jën wi mooy wa ilaa jën wi am na fu mu damme te te yëguñ ko wa wa am na wa ilaa am na fu mu felle. ñaar yooyu bu ci mën a am nag dama yaakaar ni saafara si day day gën a sori. initiative yi ñu nekk nii. Mhm. ndax bu ñu nee charte charte moo bi dafa xaw a diis. Mhm. ndax euh, suñu constitution dafa régler lii nga xamante ni ñoom moom la ñuy dox. Mhm. donc bu weñ ga bañee ca mbanjaxaan nga foofu ca constitution ba yaakaaruma ni fii fii lay nangoo ci initiative yu ni mel man ma di ko rafetlu nag. ndax woote jàmm moom ak fu mu mën a jóge ak initiative fu mu mën a jóge. lu lu baax la cim réew parce que am réew. jàmm ko jikk am réew moo xamante ni dafay nekk ci en de développement comme on di wuti. loo xamante ni mooy taw féexu ñëpp. Mm-hmm. Eh, jàmm da koo da koo jig mais la ñuy wuti déjà euh, lu ñu ñaan charte fondamentale muy suñu constitution régle na ko. Mm-hmm. ndax jël am na ci ay dispositions yoo xamante ni mi ngi ci biir charte fondamentale bi bu ko ñu ko séq ñëpp ku ne wàccoo ak ak la nga war a wàccoo. konoon lii du am. Mm-hmm. mu ñàkk wàccoo boobu nag jàpp naa ni moom moo indi. Mm. Euh, coow li indi violence bi nga xamante ni ñii moom la ñuy jéem a kar karal mhm. waaye dama dama dama dama yaakaar dañu war a gën a gas reen bi kon su ma la déggee euh, parce que li nga njëkk a wax rek dafa doy sëkk lu jar ñu taxaw seetlu mhm. mooy euh, charte bi day tegtal ne suñu démocratie dëgërul bu dee dégg naa sa galanu wax. des na waaw waaw des na charte bi itam bi muy ñëw dafa fekk ne eh, yi mu ñëw ngir di ko jéem a régler suñu constitution bari na ci yoo xam ne régler woon na ko. Mhm. Euh, euh, lan lan moo xew dañoo dañoo dañoo dañoo tënkuwut ci constitution bi dëgg-dëgg. Mhm. wala lan moo dox ci démocratie baat bi nga xam ne buñ ko déggee mu neex buñ ko tëwaree mu neex mais bu ñëwee ci pratique bi mu mel ne eh, mu gëll goose Euh, bala ñuy yegg si sax ci constitution bi. Mm-hmm. système système bi nga xamante ni moom la réew yi doxee. ñu mm-hmm. adopté ko mu nekk démocratie. Mm-hmm. moo njëkk a loolu. ndax umpale woon ni sëñ Mbacke avant réew Afrique yi di saxoo jàpp ne war nañoo mën a doxal démocratie. nguur dañ ko daan foqati. wala ñu jël ko ci doole wala nga dégg ay ay coup d'état ba ci 1990 boo seetloo la fameuse conférence de la Baule bi nga xam ni Mitterrand dafa woowoon njiiti réew Afrique yi. Mhm. pour di wax ak ñoom ñu ñu teg ay mécanismes yoo xamante ni démocratie lay dox. te démocratie li mu li mu wund mooy yow da ngay jiite man damay jiite man keneen day dogal. Mhm. waaye comme ñun ñëpp mënuñu ko bokk defandoo ñu ñu teg la voie des urnes nga xamante ni kenn ku nekk day jël saw xob ne man kat. sama sañ-sañ ak ak sama doole jox naa ko diw. Mhm. kooku daal ñuy daal ñuy jiite. Mhm. waaye moom la muy jiite peuple bi lay jiite. Mhm. parce que peuple bi ñoom ñoo ko jox mandat. c'est-à-dire yow saw xob ak ak sama xob ak xobu keneen moom moo booloo ñu ne diw moom mooy moom mooy jiite. loolu moo lal démocratie. dëgg la yow ngay jiite am aussi ñuy ñuy opposé wu. yow nga am àq ak yelleef. loo xamante ni askan wi moo moo la ko sas. ñeetam am àq ak yelleef yoo xamante ni dañu lay tëg bët. ma maanaam di la toogaanu ci ndax yaa ngi doxal. li ñu la sasam déet. Mm-hmm. bu ko nekk doxee doxee cëram man jàpp naa ni euh, violence waru ci am. te xat mën naa bañ a damm. ci mm-hmm. ci à ce niveau là. Mm-hmm. donc bu ñu demee ba nga xamante ni léegi loolu mécanisme yi am na lu ci rax. Mm-hmm. ba mu jël euh, suuf ba machine bi mënta mënta dox. dañoo war a delluwaat na gannaaw nag wala ñu taxaw seetlu. xool nag lan moo indi grincement boobu. kon kon kon jékki-jékki ne dañoo indi benn charte boo xamante ne charte non violence la baax na. ci boo ko déggee ci ay nopp. waaye jàpp nga ne dañoo war a xool machine boobu nga xam ne rouleetul lan moo ko téye. voilà parce que hmm. sociologiquement dañuy jàpp ne euh, violence bi ci arène politique bi wala violence bi nga xam ni euh, acteurs politiques yi ñoo ko ñoo ko seq benn pàcc la ci maanaam boo seetloo li ñu naan euh, chaîne la. Hmm. mais benn benn mayon bi moom mooy hmm. loolu. mais viol violence bi gën gën naa yaatu loolu. man jàpp naa ni waa chart bi. ak en tout cas comité boobu nga xamante ni dañoo jóg pour taxawal loolu. seen rayonnement maanaam si fi ñu fi ñu war a laaw. war naa gën a yaatu langue politique gi rek. ndax El Hadj Bakke réerewoo mbir ne violence bi ci biir suñu biir kër yi la cosaanoo. d'accord d'accord cellule familiale de base bi moom moo am problème. Mhm. te problème bi mooy bis bu nekk nga dégg violence yi ci ci biir kër gi. Mhm. te li ngay dégg moo gën a néew. ci li xew violence ci biir kër yi te yow doo ko doo ko dégg ma li ñaan la partie visible de l'iceberg mhm. maanaam li feeñ li umpoo ko ëpp mhm. te violence boobu ci biir kër yi lay mhm. jóge bu jógee dem ci dem ci mbedd yi bu bu jógee ñëw ci penc mi bu jógee ci penc mi ñëw ci acteur politique yi donc chaîne la boo xamante ni il faut ko violence bi ñu dagg chaîne bi fan lañ koy daggee dañuy delluwaat rek ca ca famille ba parce que ñin ñin ñin da ci penc mi ci kër lañ jógee kenn ku nekk da ngay xëy jógee ci kër génn dem sa liggéeyukaay wala nga dem ca langue poli politique hmm. soo fa exercer violence maanaam amoon na ay germes yoo xamante ni yow danga koo indaale te am na foo ko am na fu mu cosaanoo hmm. donc euh, mbir mi pour man dafa gën a dafa gën a yaatu hmm. mbirum violence euh, jamono yi gis nga actualité bi ni mu ni mu demee ay nit kuy rey ay xale euh, jigéen buy jàmm ay doomam donc violence boobu dama jàpp ne war nañ ko gën a mën a càmbar xool euh, jën wi. Mhm. lan moo ko jot. Mhm. ndax daa damm bu demee ñu jëm ko bindal saafara. Mhm. wala ñu jëm koo plâtre. <laughs> wala ñu lugg ko wala wala ñu lugg ko wala <laughs> wala ñu wala ñu mocc ko ala ala kulli haal mënta ñàkk. ñu dellu ginnaaw. xam ne les germes de la violence qui s'exercent sur. l'arène politique. am na cheminement bu mu jaar ba egsi fa. parce que les acteurs politiques. ci ay kër lañ jógee. les mhm. acteurs politiques ci société bi la ñu la ñu la ñu jógee. Mhm. chinois ñëw fi indien indien ñëw fi ñunu nee na. Mhm. ay ay sénégalais fi nekk. fan léegi nag lan la ñu sàggan wala lan moo xew ba jékki-jékki rek euh, askan wi mel ni askan woo xamante ni da dañoo am ay germes violence yoo xamante ni dafay dafay dund ci ñoom. foofu la coow li nekk. Hmm. et damaa jà damaa jàpp ni réflexion yi foofu la war a gën a mën a mën a pousser bu ñuy wuti saafara itam dañuy gën a gas reen bi pour mën a indi ay saafara. lu am euh, solo nga wax sëñ wu Sow ñu jaajëfal la bu baax a baax li ñuy seetaan jotaay bi di gindi ne ñu ngi waxtaane tolluwaayu réew mi waaye tàmbalee ko ci charte bi nga xamante ne moom la ñuy wax ne dañ koy indi ndax foofu lañ toll ñoom. bi ma ci defee ay recherche ci bëgg lañ toll nee nañ ak di ko xalaat ak xool. tudd nga lu am solo dafa mel ne suñu askan ñoo jékki-jékki rek euh, doon ñu violent nga xamante ne dañoo gënoon nañ fee lewet daal waaye nag euh, euh, sëñ bi bu ñëwaatee ci wàllu politique ci mm-hmm. seen politique bi mm-hmm. dafa mel ne moom itam naka jekk dafa mas di dafa mas a tàng jër mm-hmm. waaye jamono ji ñu toll diggante daaw ak ren dafa am nu mu demee ñenn ñi jàpp ne xëy na état dafa dafa am yum jëfandikoo ci wàllu doole joo xam ne askan wépp ko dénk opposition jàpp ne dañ koy néewal doole loolu yàgg naa am waaye façon révolte bi ñu ciy gis euh, alaaji mu ànd ak euh, mu ànd ak benn xeetu violence est lool rek jërut ñëpp ànd taxaw wax ci euh, jardalu ko ëpp yi mm-hmm. mais li ko mën a jàngal benn ci poñ yi ko mën a jàngal mm-hmm. arène politique bi boo seetloo bàkkee at yi dafa wàcc mm-hmm. ndax boo seetloo ci ci ginnaaw. daanaka benn ni niveau niveau d'âge bi. Hmm. daf daan xaw a kawe. ñu amuk euh, benn genre maturité boo xam boo xamante ni ak euh, ñàkk fugg mais arène politique bi léegi li ci li ko composé mooy boo seetloo ñi ñi ci nekk lu ëpp actuellement ñi koy incarné muy opposition comme muy kii tranche d'âge bi dafa xaw wàcc. Hmm. te ndaw day ànd ak euh, tàngat. Hmm. ndaw day ànd ak xadar. loolu aussi mën na euh, expliquer hmm. yenn yenn comportement yi que bu ñu la tegee dara nga nga nga mën a fipp wuute nag mag moom soixante-dix ans wala bu quatre-vingts mm. ans boo xam ne boo ko boo ko tegee dara fipp da koy wala wala boog ndaw ñi dañoo dañoo gis ne mbir yi dafa war a soppeeku révolte bi am yu baree bari am yooyu moo ko indi voilà parce que euh, bi moom moom moo am ci mm. ci arène politique bi li may wax rek at yi dafa xaw a wàcc mm. wàcc léegi parce que buñ njëkk ba pour nga gis ndaw bu nekk diggante trente ans kii incarne benn leadership ci ci politique bi bari tuloo te léegi dafa dafa commencé bari ba pare nag ñu ñuy bañ. Mhm. ab bañkat nag buñ koy buñ koy teg dara bu yàggee dafay fippu. Mhm. fippu yooyu nag mooy indi confrontation. Mhm. confrontation yi moom mooy moom mooy indi. Euh, violence bi damaa jàpp ni kenn ku nekk ca la nga nekk nañ la fa sàmmal say àq. yow nga nga def fa aussi say euh, devoir ñi nga xamante ni dañ leen jox pour ñu pour ñu jiite ñu xam ni délégation lañ leen jox. dañ leen a sas. pour ñu pour ñu jiite. Mm-hmm. te ñoo jaboote ñëpp nag. Mm-hmm. au delà de tout au delà des contingences ñoom ñoo jiite lépp. Mm-hmm. a ah, ñoom ñoo jiite ñi opposé ñoom ñoo ñoom ñoo jiite ñi ñi ànd ak ñoom. maanaam Sénégal la jiite parce que ay ay xobaleen fal te dem démocratie mooy du du ñëpp mais li ëpp. li ëpp lay fal. mais du mhm. du ñëpp lay fal man parce que li ciy firnde man ngaa falu ba noppi te li la falu te ëpp li la fal. justement mhm. Mhm. justement te booy seet euh, dama koy wax assez souvent ñun boo moytuwul dañuy nekk ci démocratie euh, de la minorité. ndax boo seetloo corps électoral bi ñu ko composé ñëpp. nga boo ko nattee jëmale ko ci population sénégalaise. maanaam matu sax xaaj ba. bu njee bu njee 17 million maanaam neuf neuf millions nekkul ci ci collège élec électoral bi mhm. te ci biir collège électoral bi suñuy voté ñëpp lu ñu dem mhm. sànni sànnikaat mhm. nga jàpp ne kon benn pàcc ci askan wi moom moo moom ñoom ñooy voté ñii voteel opposition ñii ñii voteel nguur comme démocratie na ko ni ma ko waxee woon c'est la loi de la majorité ku raw gàddu ki raw moom daal di jiite mais nag su subaa nag léegi day mboole seen nag léegi ñi ko ñi ànd ak moom. Mhm. ak ñi ànd ak moom ñëpp mhm. la la am obligation. Mhm. am am devoiru toppatoo leen. sàmm seen i àq sàmm seen i yelleef euh, lu am solo nga wax noonu bu ma dellu si waatee ci taarix euh, lu yàggul dara xew-xew yi xewoon ci mois de mars dafa mel ne bi dëkk bi euh, saxaaree lool yëngutu lool dañoo mujj ni kilifa diine yi ñoo ci dugal seen loxo ñaan ba tax sax jàmm amaat mu mel ne kon ñoom ay régulateur social lañ ñoo xamante ne seen taxawaay ci diggante boobu dafa am solo lool mu mel ne ñenn nag ci ñoom ak seeni ndaw ñoo bëgg a indiwaat maanaam charte boobu ñoom tey bu ñu leen doon bu ñu leen doon adopté di leen accepté bu baax a baax ci biir langue politique gi yow noo gisee seen taxawaay ñoom. Euh, man nag xam nga composition composition comité bi. Hmm. damaa xamul euh, taarix gi lu mu. Hmm. ndax dañoo ba xam ba xam ñan ñoo ko. ñan ñoo ñan ñoo ko ŋànk. Hmm. te biñ koy ŋànk ban euh, délégation de kii ak kii ak kii la ñu am. ndax li nga fi waxoon ci événement mars yi. dafa am ay implication direct mhm. ku mel ni sëñ Mountakha dafa impliqué wu direct mhm. est-ce que ci biir communiqué euh, ci biir comité bi bi bi taxaw nii am na ca ndaw wala mhm. am na koo xam ne moom moo yabal ni lii la lii la loolu ay mais nag euh, ci mois de mars bet ñi ne ci comité bi ñoom dañuy wax ne ñoom la ñoom la président mujjee recevoir Eh, ci tàng-tàng bi bokk na ci li taxoon mu dellu ginnaaw ndax ñenn ñi dañ naan sëñ Muntaxa waxoon na ak moom eh, xalifa yu bari waxoon nañoo ak moom waaye taxul mu déggal leen bi mu demee ba ci ba ci ba ci ba ci mujj gi eh, ñoom ñii ci comité bi ñu bari ci ñoom ñooy mbooloo mi nga xamante ne ñoom la ñoom ñoo waxoon ak moom waaw xam nga loolu euh, authenticité bi dafa mhm. jar a dafa jar a vérifier mhm. mais li wóor mooy mhm. euh, boobaak léegi ba Sénégal de Sénégal ba nëgën nii kilifa diine yi dañoo mës nekk ay régulateur hmm. bu bu suñu mësee jaaxle ci ñoom la ñuy dellu hmm. ñoom ñu indi ay saafara hmm. te sénégalais kenn ku nekk da am sa gëm-gëm gannaaw bu ñu gëmee sunu sunu borom ba pare kenn ku nekk am nga sa pas-pas boo xam ne dangaa ngaa jokkoo fenn te jokkoo boobu ñu jokkoo fenn tous les jours que Dieu fait ñooñu dañuy agir ci seen fonctionnement. Mhm. dund. Mhm. donc bu bu ñu egsee aussi ci espace public bi ñooñu bu ñu waxee ñu déglu leen. Mhm. parce que am na ñoo xamante ni bu ñu yëkkatee seen kàddu ñëpp jox leen jox leen cër. soit da nga koy rus. soit nga gëm ko soit mu nekk sa wa sa wasila te Sénégal loolu loolu moom moo fi am. donc yàlla may leen euh, possibilité boobu ñu nekk ay ay ay ay ressorts yoo xamante ni bu mbir mi xawee tar. wala mu doy waar moom ñu gis ne fa muy jëm neexul mhm. ñoom ñu ñoom ñu taxaw ne bàyyi leen mhm. te buñ ne bàyyi leen nit ñi nit ñi bàyyi xew gis nañ ko ci mois de mars bi lu am solo la naka jekk ni nga ko waxee ay régulateur social mhm. euh, lañ ñu jàppe leen noonu euh, ñoom itam ñu mate ko waaye nooy jàngate tolluwaayu jamono léegi nga xam ne léeg-léeg mbir xew kilifa yi àddu ci am ñu jàppe ne dañoo wattee taxas wet ñoom day nangam nangam bi ci mujj euh, alxalifa sëriñ yi Niass Euh, bu Kaolack bi mu fi ñëwee te président ñëw fa mu waxtaan ak moom joxlante ay kàddu bi mu jàllee ci réseaux sociaux yi ñu baree bari gis nga ne euh, dañoo jàpp ne euh, maanaam daal day mujj yàgg day mel ni xalif yi wala boog nitu diine yi teg nañ ci ñoom poids boo xam ne pour ñu yëkkati kàddu problème la ndax bu ñu waxee lu favorable ci état ñu ne état bi da leen a jox nangam da leen a jox nangam da leen a jox nangam saa yu neen day mel ni ndaw ñi dañuy xaar wala opposition bi dañuy xaar rek ñoom ñu bokk ci ŋàññ yi ñoom it nooy jàngati seen rôle dafa mel ne difficile naa ah. non ñoom euh, fi ñu toll mm. Mbacke dafa xaw a difficile mm. ak euh, réseaux sociaux yi maanaam internet bi ni muy ni muy fonctionner mm-hmm. euh, xam nga léeg-léeg kilifa sax bëgg a jël kàddu mm-hmm. dellu ci gannaaw ci biir euh, conscience intérieure am. Mhm. jàpp ni bu wax bu waxee ci lii wala mu wax lii ñu ne ko fii la féete wala wala wala fii la féete ca la cay topp. Mhm. la cay toftalu du du du neex ci internet bi. Mhm. loolu aussi forme de violence. internet bi Mbàkke li ci xew. forme de violence la boo xa boo xamante ni jàpp naa ni ala kulli leen faw ñu wut ci saafara. maa ngi dégg sax ñuy ruumandaat loolu fan yii. Ah. waaw faaw ñu faw ñu wax ci mënta mënta ñàkk parce que euh, forme de violence yooyu. moom mooy euh, maanaam euh, fa lañ koy jëmbate mm-hmm. muy di ko fa suuxat muy màgg ba bu génnee ci kaw euh, penc mi kenn du ko mën a téye mm-hmm. ndax umpule woon yow boo liiree commentaires yi da nga yéemu ci yàlla mm-hmm. nan la nan la nit mën a waxee yenn forme de violence verbale yi parce que aussi violence dafa bëri ay ay ay ay ay forme violence verbale bi ak violence physique bi mais verbal bi moom mooy jur toujours physique bi parce que wax ji dafa diis wax ji dafa ñagas wax ji dafa day ñaaw des fois. Mhm. te loolu c'est une forme de violence day dem nag ba nga xamante ni dafay à la limite terroriser nit ñi ba kenn koo xamante ni euh, da ngay bëgg a wax sax da nga koy hésiter. Mhm. léegi far nag léegi li muy jur mooy ñi warut a wax ñooy far di wax ñi war a wax far noppi. Mhm. te loolu bu ci bu ci am réew yëgee. c'est un problème problème muy lu wér euh, loolu lenn la ci yoo xamante ne dama cee dellu si woon ndax mu nekk ay fee mm. waaye gannaaw damay waxtaane tolluwaayu réew mi nga xam ne lépp laa boole sumbandoo ko euh, wala boog ci gënn gi mm. euh, day mel ne dana ci am yoo xam ne faaw ma benn bennal ko mm. jamono ji ñu génn yëpp lu fi waay wax da nga ci boole mbirum Barthélemy Dias nga xamante ne damaa tudd tur wi waaye mën naa koo laawaale ba matale rek wàllu justice mm-hmm. ak ñi nga xamante ni nii ñoo dëkke réew mi rawatina ñi nga xamante ne ñooy opposition bi léeg dañuy gis ne tissu maanaam justice moom euh, dañ koy manipuler wala bokk dafay wate taxas ak wet ni ma ko waxee léegi mbirum Barthélemy Dias mi bari lool ay rumeur yu ci am bari lool ay coow yu ci am ñii ne xëy na dañ koo jàpp dañ koo convoqué waat parce que euh, lim nekk candidat maire bu dakaar la contexte maanaam ci jamono boobu ci contexte boobu ci lañ ko convoqué ñii ne bu yàgg la woon euh, yooyu indi fi ak fëllaxoo ko réeroo Euh, ñu sant yàlla mujj na mu amandeegun ak dal waaye bu ma ko boolee mu nekk benn benn sëq noo ñu koy jàngatale gis nga Mbacke dossier politique hmm. toujours day euh, jur coow wala dossier boo xamante ne dafa concerner ab homme politique hmm. dafay jur coow mais le temps de la justice n'est pas le temps des hommes hmm. cest dire temps nit ni justice di doxe bokkut ak ñu euh, àdduna ak ñun nit yi ni ñuy ni ñuy doxee ñaari temps yi bokkul Euh, gis nga ni mu yàggee ni dossier Barthélémy Dias bi ni mu yàggee. Mm-hmm. ay téeméeri téeméeri dossier yàgg nañu loolu wala ñu ëpp ko ay at. Mm-hmm. parce que dañoo anonyme. kenn xamu leen parce que du ñu ay du ay am politique. parce que mais nag mais nag am na am na yu gaaw gaaw de xam naa temps aussi kon dafa am fu mu yeex am fu muy gaaw. waaw euh, ma may may may yàggale ne. appareil euh, judiciaire u Sénégal baax na. Mm-hmm. maintenant animation bi mën naa sooxe fii. comme mën naa mën naa bañ a sooxe fii mais li wér te wér mooy temps justice moom mu gaaw ak ak mu yéex appareil bi baax na suñu appareil judiciaire baax na ni ñu ko tëggee hmm. ni ñu ko mooñee hmm. baax na hmm. parce que liñ ci war a prévoir pour préserver àq ak yelleefu doomu aadama yëpp a ngi ci maintenant nag nañu koy doxalee par par moment foofu mën naa mën naa sooxe. su hmm. su boobaa du ñu interroger appareil bi. Hmm. dañu interroger ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñoom ñooy conduire appareil bi. Hmm. parce que aussi machine boo ko boo ko tegee alaakuleel faaw nit yëg ci. dawal ko na mu koy na mu koy dawale mën naa wuute ak keneen na mu koy na mu koy dawale foofu la mbir mi nekk mais li li ci li ci am solo mooy le temps de la justice moom n'est pas le temps des des des hommes te damaa jàpp ne ku ñu ku ñu mën a ku mën a dem ak lu la fa mën a yóbbu. boo jàppee ni dañ laa ak boo jàppul ni euh, boo jàppee ni tooñuloo yëpp dañu dañu war a ànd ak dal. Mm-hmm. bu ñu bu ñu demee ci justice parce que aussi ñun ñoo leen fa teg. Mm-hmm. askan wi leen fa teg ñoom. pour ñu pour ñu ñu yaate si et puis comme on dit c' est le mm-hmm. maanaam bu ñu demee ba sës. foofu rek la ñuy euh, la ñuy buñ ko soo ko weesoo rek amatoo foo jëm. dëgg la soo ko weesoo amatoo moo tax moo tax moom war nañ koo fonk waaye moom it war naa def luñ koy fonke mu ngi noonu ñoom itam euh, seen devoir mooy xam ni dañu leen faa teg. te lu ñu àtte fii daañu ko àtte fële. Mhm. loolu bu leeree ci ci bopp yi rek. Mhm. Euh, nga am conscience boo boo xamante ni. Mhm. quand tu rends la justice. tu le rends au nom du peuple. dëgg la parce que peuple bi la ñuy àtteel parce que peuple bi mënul toog defab defu defub tribunal dafa jël ay nit ne leen. at at àtteel leen ñu boo jàppee ni nag ne yow peuple bi ngay tu rends la justice au nom du peuple. looy defaree war nga cee xalaat askan wi. Mhm. te looy defar aussi war nga cee sa borom. Mhm. c'est important noo jàngate kon ni ko bëgg a politiquer nga xamante ne mm, am na ñoo xamante ne loolu euh, jumtukaayu politique lañ ko bëgg a def bu dee ci opposition bi ku ñu convoqué nga def euh, léegi sax daanaka du politicien gis naa sax euh, maa ngi ciy tooñ Mame Makhtar Guèye bu Jamra barki dem bi ñu ko convoqué daa daal def déclaration mhm. wax ne convoqué nañ ma heure telle convoqué nañ ma nangam dafa mel ne loolu itam phénomène la a nekk. ci réew mi ma génn leen ah. waaw ak xewtu lay ak xewtu lay lay bëgg a doon ca jamono boobu. ay téeméeri téeméeri Séné Sénégalais ko nañ leen ñu xëy wuji te coow te ci waaw mais xanaa xanaa kon li ñu li ñu tolloowut ay dayoo tax wala bokk. mu ngi noonu xam nga xam nga nag mbir mi léegi bu ñu jegee ba di ko natt ci euh, dayo bi wala ñu di ko natt ci ni nit ki toll foofu foofu la ñuy njëkk commencé faussé faussé affaire bi. bu fekkee ne yow dañu laa woo tribunal nga bëgg a jël euh, maanaam juróom-benni waxtu pour yegg dem euh, wuy ji. Mm-hmm. aloo que heure ba ñu la woowoon weesu nag. nga mm-hmm. dajale mbooloo. yooyu tam xam nga dafay nekk ay mbir yoo xamante ni. Mm-hmm. damaa jàpp ne rek kenn kenn ku nekk da ngaa war a des ci sa rôle. Mm-hmm. boo defee la nga la nga war a def. ñoom tam ñu def lañu hmm. la ñu war a def xaddu dam noo jàngatee li ñu wax ne président dafa wax ne yëgul woon sax bi ñu convoqué mi nga xam ne mënees na koo déggee ñaari wet genn wet gi mooy kon si si sa ngay def liggéeyam te nekkul dañ koy tàggu door a convoqué kenn wala parce que ñu baree bari sax dañ ciy juum bëgg naa nga ñëwal ñu ci ndax dafa mel ne Barthélemy ci boppam moo sàkku woon moo defoon appel bi hmm. léegi moom mu ne mu ne yëgut loolu loolu euh, yow noo ko déggee xam nga jàpp ne moom moo ko natt lépp rek ba mu tolloo. waaw xam nga xam nga man euh, li ci am ay wax yoo xam ne Mbàkke du ma ci sawar. di ci ah. di ci prononcé wu. parce que du ma du ma wér ni moom moo ko wax. Ah, doo xam ndax waaw xam nga xam nga président moom moo wax lii rek. nga mm-hmm. bëgg cee ko commenté man ngaa juum. Mm-hmm. ndax euh, amoo authenticité ne. Mm-hmm. moom moo wax lii euh, li ma xam daal mooy procès première instance bi. jàll na ñu daan ko fa. Barthélemy duggoon na duggoon na duggoon na kaso. Mhm. effectivement justice noonu lay noonu lay doxee. Mhm. boo d'accordul ci liñ la daan da ngay def appel. Mhm. parce que lii euh, dossier bi nekk appel ci coobareem la. parce que ay avocats ñoom ñoo ñoom ñoo dugal appel. léegi dàq nañu kii bi ba ba mois de mars. justice noonu lay demee. ama amaat na yeneen i droit yeneen i droit ñeneen ñi am nañu yeneen droit ba cour suprême ba ba cassation. justice noonu lay doxee te dossier yëpp nag itam noonu lay euh, noonu lay doxee. première instance cassation cour suprême. Mhm. boo yeggee ci cëppaandaw la nag ñoom ñëpp d'accord ci ne nii la nii la décision bi euh, mooy li ñu woowee l'autorité la chose jugée. Mhm. da daal di féete bor. dëgg la la ca la ca des nag moom mooy cëggal gu yu président rek te loolu aussi charte ndeyu euh, ndeyu charte réew mi ko ko may. mu jégal la ci nii wala mu jégal la ci naa bari na ay forme mhm. yu mu la yu mu la mën a jégal dëgg la euh, jërëjëf sëñ Saliou ci euh, leeral yooyu mhm. xam naa ma tëj làpp woowu daal di ñëw nag ci wàllu politique bi encore waaye nag ci élection locale yi mhm. euh, yàgg na fee am waaye yii moom dañ koo puus a puus a puus ba yaakaar naa maire yi toog sax ñu ngi bëgg a toog ñaari mandat yu tegaloo noo jàngate nag biñ ci ñëwaatee coalition yi ci juddu nga gis yeewi askan wi gisaat beneen coalition bële nga xamante ne mooy waa yi ak Benno Bokk Yaakaar noo ñu koy jàngate xam nga léegi euh, réew mi euh, Mbacke dem dem fi demal fi sa bopp. Hmm. individuellement ci élection. Hmm. daanaka daa mënatul am. lu tax loolu. ndax ni mu euh, microcosme politique bi ni mu éclaté woo. Hmm. moom moo tax doo am chance yu bari. booloo rek te te te loolu aussi dafay dellu sax ci ci taarix ne boolee booloo moom moom mooy maye moom mooy maye doole. su ngeen booloowul mun leen mun leen am lu bari. seetlu nga ko ci élection présidentielle yi passé Euh, mi ngi taxaw ci local yi nii te noonu lay demee. Mhm. noonu lay continuer demee itam nit ñi il faut ñu am ay regroupement. Mhm. suñu réew Mbàkke dafa bari ay euh, parti politique. Mhm. xam nga am réew mu nekk 17 millions habitants. bu ñu lay bu ñu lay wax nangam ci lim. waaw ci ay parti politique ci ci ay ci ay ak ay mouvement. ci ay mouvement <laughs> loolu sax euh, maanaam appareil bu ko organiser. bu ñëpp lu ne woon dañu nekk candidat appareil ak moyens yu ko organiser. moom mooy njëkk a poser problème. dëgg la donc les gens sont obligés d'aller se regrouper en en coalition. pour aller dem euh, dagaan euh, baatu. askan baatu askan wi. Mhm. effectivement noonu rek la ma la mën a demee parce que individuellement soo soo demee say chance day day néew. Mhm. parce que chef de parti yi nga fiy dégg yëpp daanaka yow ñi nga ci xam mat ñu téeméer. Mhm. ci ci ñi nga ci xam. te lim bi ëpp na loolu. dëgg la ful na ko ñetti yoon. mbaa mbaa mbaa ñeenti yoon. donc booloo bi moom impératif la te ñoom comprendre nañ ko léegi def ay ay coalition boo seetloo. ci élection yi ay coalition rek a ci dem. Mhm. mais gisoo ci rare nga gis ci même ñi am euh, volonté dem individuellement dañuy dem dugg ci ab coalition pour mu mën leen a porter seen seen candidature pour ñu mën a maximiser. Mhm. seen i chance de glaner des des au niveau mhm. muy lu am solo euh, kon coalition yi ñëw waaye am na ci. ay yëf yoo xamante ne ñu baree bare xaaluñ ko woon ci politique ci ni mujj bindoo boo xoolee coalition bi mel ne yeewi askan wi ni mu ràbbaloo ngay gis ku mel ne Barthélemy Dias say mu nekk candidat maire Dakar waaye war a jàkkaarloo ak Abdoulaye Diouf Sarr ci wet gi ñu gisaat ñeneen ñoo xamante ne Benno Bokk Yaakaar lañ amaat ay liste parallèle ci foofu ak ci biir réew mi yëpp noo jàngate loolu alaaji eh, gis nga gis nga coalition yi hmm. alaaji waaw day mujj nekk suppu kànje hmm. nga xamante ni loo jàpp ne boo ko ci defee mu gën a sax mu gën a neex rek maanaam kon euh, amatut diw ak diw war a ànd ak diw wër déedéet ñëppay mujj ànd rek euh, loolu loolu jeex na fi <laughs> euh, idéologie waaw ñii ay socialiste la ñu ñoo war a ànd ñii ay libéraux la ñu ñoo ñoo war a ànd ñii ay communiste la ñoo war a ànd ñii ay maoïste la ñoo ñoo war a ànd dañ coalition boo gis ab suppu kànja la boo xamante ni mi gis nga même pince de crabe ba ngay def ci suppu kànja ba jàpp ne boo ko ci defee mu neex da koy da nga koy da koy wuti ñoom objectif bi mooy rek nañu glaner le maximum de voix mais sooy nekk ci idéologie di xool kii laa war kii ma war a àndal sotti mhm. moo tax nga gis même coalition euh, benn Bokk Bokk Yaakaar Mhm. suuf kañ gi mu mhm. ni mu mel noonu la yeneen coalition yi. Eh, liste eh, parallèle yooyu am ci régions yi am fii ci biir fii ci fii ci gëblë gi di capital bi noo ko jàngate waaw boobu boobu moom dégg dégg naa euh, kilifa réew mi neem am na ci yow moo ko autorisé. <laughs> boobu moom kon loolu euh, maanaam politique la. waaw ko laaj mu autorisé ko. loolu ay ay kii la ay stratégie la. Hmm. peut moom euh, définir na ay stratégie ba jàpp ne yenn gox yi war na faa mën a encourager des listes parallèles hmm. pour que. Euh, ba mu teg moom. Mhm. su pertee itam ba mu ba mu tegul gagné. mais alaakulli àll ca cëppaandaw la lépp moom lay doon. Mhm. parce que kooku aussi fippu ba dem def euh, listam bu gagné tam moom la ko yàqal. Mhm. donc yooyu ay ay ay stratégie politique la. ay sew sew a ngi foofu voilà ay sew sew yu day waar la sax yoo xamante ni. pour nga xóot ci sax dafay euh, dafay jafe. parce que mhm. la ko lal nga dul euh, nga dul mën a xam à 100 pour cent. dëgg la dëgg la lu am solo la mhm. ay sew sew yu xóot la yoo xamante ni élection yooyu itam mi ngi suñ kanam ab diir rek ñu tàmbalee yëngoo ko yëngal campagne bi tàmbali euh, moom itam ñëwaat ak. coowam ak pëndam mhm. euh, maire yi tàmbali xam naa loolu danaa ci soxla tuuti euh, xalaat boo ci am mu ñeel askan wi ñeel ñi nga xamante ne ñooy laaj gox yi ndax léeg léegi itam ab maire di diggee loo xamante ne da ngay xam ne lii moom ab maire mënu ko mhm. waaye itam léeg-léeg itam élection maire it ñu dépasseel ko élection maire yóbbu ko ci beneen niveau Euh, ba ci re ba ci élection maire yi euh, législatif yi am na ko am na ñu ko jàppee ne mooy première tour élection donc présidentielle bu 2000 maanaam yee nekk suñ kanam nooy jàngate loolu. Euh, xam nga spéculation moom moom mooy mbir mi gars yi gën a bokk. ci hmm. ci politique. Hmm. mooy def météo politique. Hmm. di xalaat loo xamante ni ñëwagul wala ngay def ay projection baax na parce que politique aussi loolu la di xalaat lu ñëwagul seet noo koy noo koy anticiper yooyu. ala kulli yàlla élection moom comme ni ko tur yu wuyoo ca gox ba la. Mhm. maintenant am na loo xamante ni maire mën na ko parce que ko ko jagleel mais am na loo xamante ni mënu ko. surtout suñu réew yi ni muy ni ni muy doxee nii maire maire la man la man bariwul. Mhm. donc li nga man moom ngay wax saw askan. Mhm. mais boo jàkkaloo saw askan di daagaan seen i seen i baat di leen wax loo xamante ni yow leer na li lii. mënoo ko du sa du sa cër du sa prérogative. Mhm. et même bu doon sa cër itam amooy amooy doole euh, man koo man koo def. Mhm. damaa jàpp ni bu ñu jógee ci ci élection yi war nañu xoolaat naka lay maire yi di booloo comme euh, li xew France nga xam ne dañuy def ay intercommunalité nga xamante ni euh, ñetti commune wala juróom-benn commune dañuy booloo dañuy boole seen seen doole. pour mën a gën a gën a am efficacité. Mhm. kii indi la mu am kii indi la mu la mu am parce que suñu maire yi ni mu tëddee. Euh, jàpp nga ni communauté rurale yi la axe euh, le lu euh, ñu koy waxeeti. yan la. communauté rurale yu njëkk yi. Mm-hmm. acte trois de la décentralisation moom moo leen def mm-hmm. ay ay commune de plein ay commune de plein exercice mm-hmm. mais xam nga ni commune rurale comme ni nga ko xamee ca dëkk ba nga dëkk Njaaréem seen doole ak seen i même moyen de am seen i recette bariwul noonu ba ba nga ba nga xamante ni dinañ a def yenn yi pour seenu askan def yenn yi pour dëkk bi mhm. ñooñu léegi li leen réel politique di commandé ak réel économique li mu leen di commandé mooy ñu booloo. Mhm. Euh, je crois que am na ay initiative yu fi démarré au niveau de Sandiara yooyu nga xamante ni dañoo xaw a booloo yi dig digal yi wër foofu yëpp. Mhm. def benn intercommunalité boo xamante ni dañuy bokki mbir. Mhm. bu ñu waree def garage ab gaaru cër bokk ko bu ñu waree def ab plateforme bu bu camion yi gaaree ñu ñu bokk ko yooyu def def naa ne jàpp nekk na ci initiative yi nga xamante ni bu ñu weesoo élection yi ba ñuy gagné gagné ñi ñi ñi perte perte war nañu commencé nag continuer réflexion pour xool. commune yi nan lañ koy euh, gérer parce que commune bi quand même rek ci juuteeg wuti wuti tax ak jaayum njaayum suuf ak ak spéculation foncière. Mm-hmm. lu am solo la euh, loolu aw làcc la woo xamante ne mu ngi suñ kanam xam naa sax danañ ci gën a dellu siwaat yombul ci yeneen jotaayu gindi. Euh, yu ñeel élection local yi njàngat yi nga xam ne moo ci am ak lenn ci programme mu yenn ci coalition yeeg yenn candidat yi parce que fi mu ne coolee fi nekk diwa nekk dëkk sàngam waaye ñi ci waxagun ay programme bëreegut euh, te programme nag daa bokk ci li ñu xaar ci nit kuy ñëw gis ne mhm. ki fi nekkoon def na nangam man bëgg naa cee yokk nangam mhm. wala waroon naa def nangam te defu ko bu ngeen ma falee danaa ko def léegi ñu natt nag ndax kooku mën na ko wala mënu ko mhm. euh, waaye mel ne buñ jàngatee élection locale yi léeg-léeg cërub politique moo ci gën a feeñ ci gox yu bari koo xamante ne danaan bu ma gañee ñu man maa def nangam nga xam ne moom jot ci maire bi lay doon wala gañee localité bi lay doon mhm. ngir ñu man koo bàyyi ca post ministre am wala ca post direction bañ ko dénk wala nangam wala nangam waaye faluwut ngir defal aw askanam wala bokk ay programme yu mu am ci dëkk bi dëgg-dëgg yitteelu ko waaye sàmm cëru politique am moo ko indi noo jàngate tolluwaay boobu ci gisinu gaa yi euh, loolu nag Mbacke gis-gis ak pas-pas koo gën a gàtt mhm. ab ab aussi mënu koo gën a woyof c'est-à-dire dem daagaan baatu askan wi jël sa localité maanaam pour euh, monnayer ko. Mhm. ne da ngay nekk DG wala da ngay da ngay nekk ministre. Mhm. gis-gis mënu ko mais da ngay dégg ñu ne bu gañewut ñu dàq la. ku gañewut ma dàq la bu léeg-léeg sax ñu dégg ko wala boo ku gañewut ñu dàq ko léegi kay day mujj moom day gañe ngir téye lale waaye mhm. gañewut ngir defar lii. waaw ah, léegi nag foofu la foofu la ñuy interpeller askan wi. loolu interpellation wu askan wi la. bu fekkente ne yow jàpp nga ni kii di kii di daagaan sa sa da koy téye pour dem euh, monnaie ko wut ci wut ci leneen yow yow yaay xool ñaata électeur alaaj yi ñooy xool programme nit ki mhm. c'est-à-dire que nga mu tegal la programme nga xool ko jàpp ni kii kat juróomi at yi ma ko ma ko confier dëkk bi fii la jëm ak man lii la lii la nar def mhm. bu ñu ci yeggee ma évaluer ko mhm. actuellement def nañu juróom-ñaari at euh, électeurs yi leen war mooy kenn ku nekk ka nekkoon maire ca sa gox nga évaluer gis ne ba nga ko joxee ba nga ko joxee saw carte mu mu toog ci diir bi juróom-ñaari at yi ndax yow gis nga ci sa bopp. Hmm. d'abord ndax euh, dëkk bi gis na ci boppam ndax gis nga amélioration yoo xamante ni c'est visible c'est visible à hmm. bu ko bu ko loolu rek évaluation programmatique la. Hmm. maanaam même bu ñu la wanul ab dossier ne la lii mooy sama programme mais am nga sa xippeeg sa xol. boo boo xippee xol gis ni gox bii kat. Euh, ba ma koy jox kii juróom ca gannaaw nii la meloon juróom-ñaari at euh, weesu na nii la nii la nii la mel mën naa mën naa forger sa conscience décisionnelle. Mm-hmm. à partir de ce moment nag. évaluation la effectivement lu am solo la alaaji bu ma paree ci point boobu bala maa dem ci euh, weneen laaj ci wu génn politique bi te du ko sori euh, mooy dellu si premier ministre. dafa mel ne ci conseil de ministre bale ñu génn euh, jotoon nañ ko faa for mu bokk ci namm-nam mi njiitu réew mi ginnaaw bi nga xamante ne bi élection présidentielle yi jàllee dañoo dindi woon poste premier ministre léegi nag daa mel ne amaan namm-nam mu delloo siwaat ko Eh, ñenn ñi ne ak làmbatu la ndax moom daal tubarkal la ba mu ko fi jëlee itam fast track lañ waxoon waaye daa mel ni yëf yi daa mel ni dafa gën a yeex ba tax mu war koo delloo siwaat am ñeneen ñu ko jàngat ci beneen niveau bu gën a bu gën a kawe gën ubbeeku loolu yow ban déggin nga ci am. xam nga euh, alaaji affaire euh, poste premier ministre moom euh, président la yàlla jagleel. de par la constitution. Mhm. mu bu ko neexee. mu taxawal ko. Mhm. bu ko neexee mu dindi ko parce que ci régime présidentiel la ñu. la nekk la ñu nekk. dëgg la euh, premier ministre nekkul ne mooy définir la politique. Euh, mhm. de la nation président moo koy définir. moo koy définir bu nekkee premier ministre moom day euh, dafay exécuter. Mhm. dem nañu ab diir ba bi ñu génnee ci élection deux mille dix neuf yi mu gis ne da ko war a dindi. mu dindi ko te ba te ba mu koy dindi aussi joxul kenn raison ne. lii moo tax ma dindi lii moo tax ma dindi ko. ba mu koy indi itam. dégguma fu mu fu mu waxee ne lii moo tax ma di ko indi. moo tax mhm. mooy mooy indi analyse. kenn léegi kon lan moo ci taxawaayu askan wi. léegi moom bu fekkee kon moom dafa war a est-ce kon nekku ne dafa waroon a joxe ay raison wala mu wax ak ñun bañ xam ne lii moo tax wala lii moo tax. wala loolu am na sañ-sañu bañ ko def en fait il parce que mhm. moom mooy nommé post poste militaire et mhm. militaires. loolu constitution bee ko ko may. cest à ñun. li ñoo ko jox constitution bi ñu bi ñu wote. waaw ñoom ñoo ko jox ñun ñun ñoo ko jox ne ko. sañ nga lii sañ nga lii sa sañ-sañ la mhm. sañ ngaa fal ku la neex mhm. sañ ngaa wàcce ku la neex mhm. ci diir bu la soobee ak jamono bu mu la soobee loolu moom <laughs> constitution la ku mën a ñëw itam waaw ci ci loolu ngay tënku comme nag ay ay sañ-sañam yu ñu ko jox la ñun mu jëfandikoo ko te euh, amul aussi obligation wax ne lii moo taxoon ma dindi ko. Mhm. lii moo taxoon ma indiwaat ko. Mhm. liñ ci mën ñun moo en tant que observateur mooy di jàngat tolluwaayu réew mi rek. Mhm. ak fu mu toll xool ndax baax na ci ne mais man li li ma gëm personnellement. mooy premier ministre baax na ci réew mu mel nii. Sénégal réewum réewum Sénégal. ndax boo seetloo Mbacké ci wax sa xalaat ak euh, ci débat yi ci plateau yi kuy wax président la République ngay interpellé directement te te euh, diggante yow fi nga toll ak ak fa président toll am na ab. aw aw dig woo xamante ni mm-hmm. sore ngeen lool voilà man maanaam am na ay euh, points yoo xam ne war nga faa mën a jaar pour sa mm-hmm. problème saafara wu mm-hmm. te doo te doo te doo yegg ci président te ci mayon yooyu premier ministre ci la ci la ci la bokk ma ma jël exemple nii grève bi xew diggante démb ak léegi te ji su fi premier ministre amoon mën na mën na monter au créneau pour woo acteurs yi parce que ñoom la seen plateforme revendicative bi ma liir concerné wul seen ministère de tutelle bi leen mm. bi bi leen bi leen yor rek mm. maanaam ñeenti ministre nga ci yoo xamante ni mm. kenn kenn ku nekk am nga loo xamante ni moo la concerné ci plateforme ñoom bi ñu ñu bi ñu bind nga war caa defi mbir léegi coordination boobu bu fi premier ministre nekkoon mën naa woo ñeenti ministre yooyu mm-hmm. Mm-hmm. ñu ñu làng ak moom nii mm-hmm. mu woo syndicat yi ñu làng ak moom nii ñu wax kenn ku nekk wax la nga ca man mu coordonné loolu donc absence su premier ministre euh, exemple rek ci ci bu ma jël yoo xamante ni jàpp naa ni présence am am na solo ci ci ci wetu président parce que mhm. président agenda bi mu yor ak li ko li ko war yëpp su ko bëggee booleek euh, coordonner l'ensemble de l'activité gouvernementale mën naa sooxe mhm. dëgg la muy lu am solo foofu nga daaneele sax euh, foofu la ñuy ñëw ci suñu laaj wu mujj mhm. muy grève bi nga xamante ci biir ay bis gi gis nañ ne transport bi wala transporteurs yeeg ñiy yëngatu ci wàllu transport yëpp amal nañ ko muy loo xamante ne lu am impact la ci société bi ba noppi def ci ay jeexital yu méttee méttee méttee métti yaa ngi junj léegi seen point de revendication yi nga xamante ne moom lañ teg Mm, am ci point yoo xamante ne askan wépp dañuy constater ne lii kat wax dëgg yàlla moom lu metti la euh, am yoo xamante ne dañ naan loolu moom ndax sax ab ministre mën na koo jeexal wala ndax président mën na koo jeexal muy lu jëm ci wàllu corruption lu jëm ci yenn ci yenn jafe-jafe yi nga xam ne loolu suñ mbiri bopp la ñun hmm. du transport dong waaye boo demoon ca état civil ba moom nga fay fekk boo demoon sax ca bitig ba ngay jënde sax boo muy tuut nga fekk fa wala fa ngay watoo loolu noo ko jàngate Euh, xam nga maan euh, Mbàkke euh, grève bi di xew démb ak léegi boo génnee ci dëkk bi diggante démb ak léegi da ngay da ngay da ngay yërëm sax askan wi. Mhm. ci ñàkk mobilité bi nga xamante ni askan wi am na ko. bëgg bëgg a dem te mënoo dem. Mhm. dara gënu koo metti mhm. li ma ci gën jaaxal nag mooy ñoom bañ ko annoncé yàgg na absence de pro réactivité boobu man moo moo moo ma jaaxal. parce que bu fekkente ni euh, dañoo booloo defub dank wax ne bis sàngam danañu danañu dem grève nga war a mën a évaluer impact bi nga xamante ni grève bi war na ko mën a mën a def muy impact économique bi impact social bi mais impact sociologique bi aussi. Mm-hmm. parce que ñetti ñetti yëpp dañoo. Euh, dafa am yu ciy def dafa am yu ciy def ay ay jeexital. tey jii am na koo xamante ni euh, bëgg na xëyee. banlieue bëgg a ñëw Ndakaaru mhm. ca la waroon am lu mu yóbbul mhm. njabootam te am na ñoo xam dañu xëy ba mu naaj ñi door a mën a yónnee dara ci kër ga mënta ñëw <laughs> tey damay wax ak euh, ci suba euh, sama benn xaritu euh, gérant mu ne ma démb perte na 75 pour cent. lim mhm. lim daan am. mooy ci premier jour grève bi. ci premier jour grève bi 75 pour cent. la la perte en maanaam lim li mu doon am bu doon téeméer la. ñaar fukk juróom la la am démb. nar ko amaat. tey léegi euh, calculer ñaata station d'essence ñoo nekk ci réew mhm. ñaata point économique. Mhm. ñoo lay li li dal station bi di dal ñooñu. safoor beeg ñi ak wàllu transport am dafa yaatu ginnaaw moom. Mm, li ci nekk dafa yaatu ma nga noonu la la ca laxasu dafa dafa bari beneen beneen mbir bi ci nekk mooy euh, grève bi waroon nañu xalaat ne dana metti ndax euh, capacité de résilience aux transporteurs yi dafa aiguisé wu li ko def mooy Covid bi dafay jaar ñu tëj leenu diir. Mhm. ne leen du ngeen dem du ngeen du ngeen dikk interrégion amatul donc miis nañu foofu ne mhm. ñoom bu ñu bu ñu toogee mën nañoo toog ab diir mhm. te te xaddu damm mm-hmm. wala wala bu xat dammee itam xaddu réer mm-hmm. danañ ko jëlaat bind <laughs> donc capacité de résilience boobu la ñu am mm-hmm. moo tax mais am des na ay at ci gannaaw euh, yi waaw xalaatuñu woon loolu mënuñu woon xalaat ne dañuy toog même euh, sax grève bu daan amee nii da am benn benn benn kii bu grève benn benn syndicat bu grève mais am ñeneen ñu xëy liggéey mais tey moom euh, ay bi am ci ay bis yi moom dafa mel ne dafa jéggi dayo moom covid bi da leen a renforcer ci seen capacité de résilience jàpp nañ ñi mën nañ toog semaine du ñu liggéey nekk ci grève te du leen tere dund. Mhm. parce que loolu Covid bi wan na leen ni. Mhm. mën ngeen a toog diir. Mhm. mais avant avant Covid xalaatuñu ko woon parce ñaari fan donc boo ko boo ko toogee mais léegi nag loolu ñi nga xamante ni ñoom lañu ñu dénk. secteur bi. ñoo war a am capacité de euh, réaction. boo boo boo xamante ni. bu bu fekkente ni lii am na ñu jéem a seet saafara. wala ñu jéem a sax. Euh, def ay début de solution. Mm-hmm. pour que lii pour que lii bañ a am parce que 48 mm-hmm. heures ci am réew. réew euh, réew mu ne kàkk mais perte économique bañ cay bañ cay perte donc. Mm-hmm. yaakaaruma ne 11 points yi ñoom yi ñu joxe sax. Euh, lañ cay perte ca ca xaalis buñ ko buñ ko jëloon def ko ci loolu. daal di am saafara dëgg la muy lu am solo xam nga grève itam dafa mel ne ci wàllu démocratie ak yooyu manifestation yooyu yëpp nit ki da koy sañ. waaye boo demee boo demee yéegal tuuti ci wàllu développement réew yi nga xam ne tegu nañ ci yoon bay dem xëy suba toog ne damaa grève liggéeyu ma ma nga fay tàmbalee jeex damaa xamut ba xam communication bi ñu manee ci suñu diggante eh, ñoom ñi naqarlu mbir ak di ko mettitlu ak ñi leen ko war a saafaraal moo des ba nga xam ne faw ñu def lu metti ñi door leen déglu wala mënoon nañoo bind yónnee wane ne lii ak lii naqari nañu ñu tontu leen wax ak ñoom régler problème yi te duñu agsi fii lan moo xew ba ñun daal faaw rek ñëpp yëg la say mbir door a faju euh, conscience bi la ñu war a gën a nàmm. Hmm. suñu conscience professionnelle la ñu war a gën a nàmm. suñu conscience citoyenne la ñu war a gën a gën a nam mm-hmm. suñu conscience nationale lañu war a gën a nam xam ni réew mi moo ñu tiim ñun ñëpp mm-hmm. te euh, réew mi daf ñoo am lu mu ñu jox ñu war ko delloo njukkal mm-hmm. que nga nekk ci côté transporteur yi que nga nekk ci côté état bi kenn ku nekk ci ñunu am na responsabilité bu toll ni su mbir di bëgg a bëgg am nga xar ci sa sa tànk tubéy pour du pour du am. réew yooyu ngay ngay ngay wax noonu seen capacité d' anticipation rek leen ko may. mais fii dama jàpp ne euh, ci en tout cas ci point bii ci ci ñaari fan yi capacité d' anticipation bi des na. parce que mbir da nga koy da nga koy gàttandu. bala mu naan tëll ci sa kaw da koy da nga mais boo xaaree ba mu ne tëll ci sa kaw te lépp xam nga ni ci taabal lay mujj dañ koy waxtaanee. waxtaanee ko avant. parce que tey ñi ngi ñi waxtaan. mais le mal est déjà fait. a waxtaane ko anticiper lii waaw te kuy grève doo jékki-jékki grève di nga wax ne danaa grève dat sàngam ndax nangam nangam préavis de grève kon kon war nañoo waaw préavis de grève grève yooyu kon war nañoo mën a anticiper itam euh, li nga xam ne yàgg-yàgg ci la ñu mujjee loolu sax loi moo ko définir mhm. loi moo ne bala ngay bala ngay da ngay yëglu mhm. ci ab diir loolu nag bi mu koy wax daa mel ne dafa bëggoon boo yëgloo ñu wax ak yow ah. nga xam ne lu mënta ñàkk a tax grève am xam nga loi bàyyiwul dara déedéet mais dañ ne la bala ngay dem grève yëglul mhm. boo yëgloo ñu seet lañ ca mën a saafara mhm. avant date bi egsi mhm. ñu saafara ko lañ ca lañ ca mën da saafara ñu woo la wax ak yow teg ko ci ay digee ak ay promesses yoo yoo yoo xamante ni réaliste mais réalisable parce que wax nii rek ne dinaa def dara ëllëg te fekk na pare pour def ko ba nga koy wax xam nga ni gëmoo ko wala ba nga koy wax xam nga ni mënoo ko loolu aussi du doxalum réew mais li ngay diggee dafay fekk nga nga nga man ko teg ko ci programme boo xamante ni bu ñu yeggee ci di nga ko mën def bu ñu yeggee ci la lépp lépp mat mhm. loolu loolu la ñuy wax proactivité mhm. parce que boo ko boo ko defulee li mooy lii day ñëw ne xës ci sa kaw léegi ngoon nga toog woote bu ñu wootee ngoon ñu ne léegi nañu mot de grève bi mais ñaari fan dem na fi mhm. yoo yoo xamante ni naa ñàkk te te loolu kenn ku nekk daf ci am responsabilité parce que jàpp ma ni même transporteurs yi seen intérêt la pour ñu toog ñaari fan li liggéeyuñu parce que mm-hmm. ñoom tam jàpp naa ne ay patriotes lañu ñoo xamante ni réew mi ñor na leen dañoo am peut-être lu leen naqari amuñu fu ñu ko jooyee ñu di ko manifester forme bi nga xamante ni yoon moo leen ko autorisé mm-hmm. parce que tojuñu mm-hmm. génnuñu ci mbedd mi dañoo banque seen i loxo te te loolu aussi ci euh, loi la bokk loi may leen ko ñu jëfandikoo ko des na nag léegi ci ñoom ñi ko séq ñëpp mhm. kenn ku nekk am loo bàyyi parce que mbir day day toll foo xamante ni il faut nga am loo loo bàyyi ñoom dañu am lu ñu bàyyi mhm. euh, état am lu mu lu mu bàyyi ñu daal di daje mhm. pour lépp nag pour njariñu askan wi jërëjëf njariñu askan woowu moo ñu taxoon a toog boobaak léegi ab diir di waxtaane tolluwaayu réew mi ak suñu gan di Saliou Sow di observateur indil nañu ay observation yu baree bari ci tolluwaayu réew mi ci fànn yëpp ba ci gi nga xam ne moom la ñu mujjee te liñ desal ci suñ kanam ëpp ko waaye nag euh, euh, lu jiw a jeexut jógu fa waxtu wi moo daal mujj mat moo tax foofu la ñuy daal di teg suñ baaraam daal lay delloo kàddu gi suñ saaliwu ginnaaw bi ñu la jaajëfalee ndokkee lal bu baax a baax nag ci waxtaan week euh, njàngat mu maandu mi nga xamante ne daa bokk ci yiñ soxla ci pénc mi léeg-léeg mbir yi day toll foofu day naqaree waxtaane mm-hmm. moo tax Tawhid TV ci ndigalul suñuy kilifa ñu ne bëgg nañ ñuy waxtaan ci lépp waaye nag bu mu doon politique boo xam ne wate taxas wet la wala politique boo xam ne ŋàññante la wala wax lu jaaduwul la waaye li toll ci jamono bu ñu ko mënee jàngatal askan wi ba mu jege leen loolu day bokk ci li nga xam ne war nañ cee bàyyi xel ma bàyyi la nga joxe sa kàddu yu mujj ak yi ngay jeexale waaw kàddu gu mujj xanaa sëñ mooy gërëm la rek sant aussi ci sa taxawaay mm-hmm. ndax lii aussi euh, loo amel réew mi la mm-hmm. yaa ngi ciy euh, yaa ngi ciy bay sawaar parce que am réew li koy doxal mooy loolu kenn ku nekk fa nga nekk mm-hmm. nga def fa la nga la nga war a def laaj fa la nga la nga la nga war a laaj su maasee rek moom mooy dellu ci baatu ba bañ doon wax ca njëlbeen. Mm-hmm. di di di sant di gërëm di remercier aussi waa taw Tawhid TV yëpp que DG bi ba ci kenn nekk suuf technicien yeeg ñëpp mm-hmm. di ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax nii mu doon tawfeex goo goo xamante ni nit ñi daan ci amuk dégg amin akuk déglu amin jërëjëf jërëjëf sëñ Saaliwu ci njàngat yu am solo yi jërëjëf Abdoul Karim ci euh, réalisation bi ak taxawaay bi ci émission bi Mansour Diop moo doon toppatoo lu jëm ci wàllu son bi ak yi nga xam ne moo ci aju ñaari imam Thiam yi ci montage bi jaajëful baax a baax Aline Badara Diak euh, ci coordination bi ndokkeel bu baax a baax suñ PDC ñaan borom bi sàmm ko mbokk yi cant ngërëm ñeel na leen lu jiw a jeexut jógu fa ñu dig leen daje ay bis gii di ñëw ci beneen émission gindi incha allah Thank you.